xaaj bu jëkk bi ci ñeenti xaaj yi yàlla aar na Israyil def ko aw xeet wu am maanaa tey dinanu waxtaan ci ni yàlla yóbboo seti Ibrahima ca Misra ba noppi génne leen fa def leen xeet wu yaa Yanqoba amoon na ay doom yu góor yu bare waaye Yusufa la ci gënoon a bëgg benn bés yuusufa wax ay magam ne yàlla won na ko ci gént ne dina jiite ji kër baayam magam yi daldi mer ci loolu noonu ñu nax ko jaay ko ni ab jaam ay nit yu doon dem misira waaye yàlla ànd ak yusufa gannaaw gi ñu tëj yusufa kaso te deful woon dara bi yusufa nekkee kaso am lu firawna gént ñu woo yusufa ngir mu tekki gént gi yàlla dimbali yusufa mu tekkil na gént gi gént gi tekki ne juróom ñaari at yu naat dinañu am ci réew ma te gannaaw loolu juróom ñaari ati xiif dinañu wàcc ca réew ma firawna daldi fal yuusufa jaraaf ci kaw misira ci at yu naat yi yuusufa denc pepp mu bare ba xiif ma ñëwee fekk misira dencoon na pepp mu bare xiif amoon na itam ci réewum kanaan noonu yanqooba yónni ay doomam ñu wuti pepp ci misra yusufa baal ay magam ci li ñu ko waroon na baax lool ci waa kër yusufa ba dogal yanqooba ak ay doomam suuf sa gën a baax ca misira ngir ñu dëkk yàlla dig yanqooba ne benn bés ay sëtam dinañu ñibbi ci réew mi mu leen dikk muy réewum kanaan léegi ma laaj leen benn lu tax magi yusufa yi jaay ko ni ab jaam dañu ko merewoon woon ndaxte moom la seen baay yanqooba gënoon a bëgg te itam yuusufa dafa waxoon ay magam ne yàlla won na ko ci gént ne dina leen yilif ñoom ak ay waajuram ñaar naka la yàlla sottalee gént gi yuusufa géntoon bi mu nekkee xale yàlla may na yuusufa xam-xamu tekkil Firawna ay géntam noonu Firawna def Yusufa mu yilif waa Misra looloo tax mu yilifoon itam kër baayam bi ñu toxusee Misra ñett lu tax Yusufa dem Misra yàlla moo ko tëraloon ngir musal waa Israël jaarale ko ci yusufa ñent ndax yusufa téye woon na mer ci li ko ay magam def déedéet ndaxte baal leen bàyyi lépp ci loxol yàlla juróom ndax gëm ngeen ne yàlla bëgg na nu baal ñi ñu tooñ te bañ a lu tax waaw kàddu yàlla gi nee na war nañu baal ñi ñu tooñ war nañu bàyyi mbir yi ci loxo yàlla te wóolu ko